alhamdulillahi rabbil alamin wa wasalaamu ala maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñoo ngi sant yàlla julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaan yàlla dolli jàmm ci àdduna bi yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def di ziyaara bu baax mbokk yi jàkkaarloog ñun fii ci sunu média tv sunu xutba di suur tey ñu jëmale ko nag ci li nga xam ne mooy xew-xewu jamono xew-xewu jamono bi nag ñu ngi ñaan yàlla rawatina réew mi fi mu toll nii nga xam ne coow li bari na dàgga sante gi bari na ku nekk rek di xëcc sa boor dara waralu ko li may wax toujours mooy ñàkk utee gi nga xam ne moom lañ uteeg yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ay jullit kat suñ dëkkee ci aw réew ku nekk rek doyloo boppam yaakaar naa ne loolu bokkul ak li nga xam ne loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon waala kulli haalin ku ci nekk rek na gëm ne yàlla mooy ki ko bind bind gim ko bind kat fayit ko ca dara bu ëllëgee it moo koy jël kenn du ca mën dara jàmm bi nag saa boo xamee ne am na gis-gis ci kaw suuf gis-gis bu baax mën na ko fësal waxtaan ci ak nit ña dara du ca nekk waala kulli haalin su fekkente ne nii gis-gis yu baax la ñun nag tey toll nañ foo xam ne uutee nañoo yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu gis-gis ak gis-gis yi yonentu gis-gis yi alquran gis-gis yi sunna bi ba tax na li ñu dal yëpp di ñu dal wante nag suñu dalee lan lañ war a def jullit bi su jaaxlee nu mu war a def dellu rek ci yàlla def ay ñaanam ndax yonent bi moo wax ne ad-du'aa ussilaahul mu'min ñaan nag mooy ngàndaay jullit yi sakam ñaanay ngàndaay jullit ñi kon benn jullit warta des ginnaaw ci ñaan jëm ci boromam waaye loolu yëpp ñooñu ko looloo ñu ko yóbbee alquran waxoon nañu ne falyanzuri lazina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum asabun alim uutee gi nga xam ne yàlla wax na ne ñi nga xam ne dañu uuteeg yonentu yàlla moom sallallahu alayhi ñu ñooñu nañ def ndànk waaye nañ xam ne mbugal mu métti métti métti xal si na leen a dab te loolu amul benn sikk ndax ku uteeg yonentu bi sallallahu alayhi wasallam rek yëgal ne yow yaa ngi si tuuka yaa ngi si yaa ngi si yoon woo xam ne yoon wu yàlla sib la wu yàlla bañ la te yàlla lépp loo xam ne dëgg-dëgg bëggut ko loolu musiba la toskere la ñeexal jaam boobu nga xam ne moo ko jublu moo tax alquran doon ñu wax ne nañ tuub dem ci yàlla ayyuhal mu'minuun wa tuubu ilallahi jamian ayyuhal mu'minuun tuub leen dem ci yàlla yéen ñëpp ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla kon nag dangay gis ne mbir mi am na ñoo xam ne seen gëm-gëm ak seen pas-pas moo yaatu ut ci yàlla ba nga xam ne ñoom daanaka bu mbir amee rek ñoom amuñ luñ ciy doxalee rek lu mooy dëgg-dëgg seen bakkan yi rek lañ cay yiital àdduna jarul xëccoo jarul giiroo poñetum àdduna du dara waaye ñun ñi nga xam ne ñoo jaaxle dem rek ci yàlla rek mooy sunu mooy solution ci ñun waala kulli haalin nañ góorgóorlu ci loolu ta ñu déem a topp yàlla topp yeneen yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa ndax loolu la yàlla digle topp yi ñi nga xam ne ñoo ñu ootee omat ñu jëmee ci yoonu njub mooy ñi nga xam ne ñoo fi donn wala ñoo fi uutu yonent bi ci wàllum jàngale ci xam-xam donta matal loolu uh, yombut alquran waxoon nañu atiyon allaha wa atiyon rasula wuli amri minkum topp yàlla daal mooy topp yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam am na ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy boroom xam-xam yi ci kaw suuf nekk di diggal nit ñi ñun daal suñ jaaxlee nañ dellu ci yàlla nañ góorgóorlu dellu ci yàlla nañ góorgóorlu dellu ci yàlla loolu rek dëgg dëgg mooy mbir mi moo loolu rek moo ñu mën a dimbale moo tax alquran doon nañu wax ne béggal nañ ñi nga xam ne tamit dëgg-dëgg ñoom dañuy oote jëm ci yàlla ci yoonu mbaax yoonu njub ñu daal dëgg-dëgg ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy muflihuuna yi min waltakun minkum ummatan yad'una ila alxayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna anil munkar ulaika humul muflihun loolu nag mat naa bàyyi xel waaye nag yàlla wax na ne ndajeem ñi nga xam ne ñoom dëgg dëgg seen ak ndaje yi ndaje yi caaxaan la rek am na ñoo xam ne seen ndaje tekkiw dara moo tax ñun buñ jaaxlee ci ponkal wala mag ñi nga xam ne ñooy royuwaay ci réew mi su fekkee ñun dem nañ ba jaaxle ci ñoom xamatuñ fuñ jëm ñun nañ dellu ginnaaw delluwaat ci yàlla ñun féeteeg yàlla daay man xam ne ñun am nañ njiit yoo xam ne dëgg-dëgg parewuñ pour dimbali ñu te yàlla mooy njiit moo xam ne yàlla mooy buur boo xam ne moom pare na pour sowe jaamam yépp feeg jaam baa ngi daw jëm ci moom moo tax yàlla doon na wax ne laa kay xayra fii kasirin mi man naj waaxumu gis nga euh, am na ñoo xam ne yàlla wax na ne seen ndaje yi moo tekkiwul loolu dara ndaje yi ci nekk yëpp jëriñu dara te ñun dëgg-dëgg nag alquran bam ñu waxee bam bam ñu liyee daf ñu wax ne waxtaankat yi wala borom xam-xam yi laay ji nga xam ne métti woon na ci métti na ci ñun lool lool law laa yen aawum rabbaaniyun wala axbaaru yàlla si boppam mu ngi fàttalil borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi yàlla ngi leen di wax xanaa ñoom dañu nekkul woon di waar ñi nga xam ne wala di leen fàttalil wala di leen dénk njub mbaax ak tegu ci yoonu dëgg xanaa ñoom aha ñi ngay wax rek wax dëgg yàlla ña ci bari ñu ngay wax waaye daal dëgg yàllaa ñu nattoo ay njiit yoo xam ne parewuñ pour dimbale mukk seen peuple bi pour dimbale seen pare nañ pour dimbale seen bopp pare nañ pour sànq seen bopp sax laa koy tuddee ndax képp koo xam ne yaa ngi gi wan ginnaaw loo xam ne yàlla moom la la dénk jàppal na rek yow dëgg-dëgg yaa ngi si guute goo xam ne yaa ngi si guddi goo xam ne bër setut yàlla nag mooy muccal jaam yàlla na ñu yàlla muccal yàlla nañu yàlla may jàmm yàlla nañu yàlla taxawu dimbale ñu may ñu tawfiix bu baax a baax sàmm ñu te aar ñu mbooleem jafe-jafe yi am ci àdduna bi feebar bi yeeg yëpp yàlla nañ ko yàlla yàlla na ko yàlla génnee ci àdduna bi génnee ko ci Sénégal Afrique yëpp yàlla na yàlla génneel ñu ci musal ñu ci tamit yàlla na yàlla sàmm ñu te aar ñu may ñu jàmm ci lu feeñ ak ci lu nëbb waaye dëgg-dëgg nag war nañ góorgóorlu rawatina suñu njiit yi nañ góor góor lu bàyyi xel askan wi lu mu yàgg-yàgg ñoom ñëpp amul président bi amul buur bi amul maire bi amul kenn amul koo xam ne dana muccee dugg ci biir suuf ñëpp danañ dugg ci biir suuf te buñ duggee ci biir suuf wallahi danañ dajeeg yàlla euh, dëgg-dëgg nag ñu ñaan yàlla mu musal ñu ci mbugali bàmmeel yi musal ñu tamit ci uuteeg yàlla musal ñu tamit ci uuteeg yonent bi ak ooteem alquran te dëgg-dëgg musiba yëpp li ñu ko yóbbu mooy loolu waaye nag suñ demee ba xam ne jaaxle nañ jullit daal dëgg-dëgg su jaaxlee na dellu ci yàlla tuub nag dellu ci yàlla dal di nag dabaatal dal di góorgóorlu tegu ci yoonu njub na ñu ko yàlla defal yàlla man na ko yàlla nañu ko yàlla defal waaqiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.